mi ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf sant bu baax a baax yëg nañ taxawaay bi lool waaye noon dong la waxtu yépp dañoo wuuti ay defeen rek waaye nii nu def ci waxtu wii bu tedd wii ci guddi gu tedd gii delloo suñ lépp sëriñ bi loolu rek moo nu war ci waxtu yépp kon nag noonu rekk la nu gën a góorlu bu baax a baax bu kenn ku ne ci nun bu mu jàpp mukk ne sunu warteef woyof na waxtu warteefu rëy lanu fi sëriñ bi bàyyee al masuliyatul kubra mooy responsabilité bu mag bi nga xam ne moom la nu fi sëriñ bi mooy suñ dono amut lenn luñ war a yëngatu di ko xemmam wala nu di ko jublu walla nu di ko bëgg wala nu di ko wettilikoo lu dul nekk ci lii rek waxtu wu nekk nag rek waaye nag waxtu yi rek ñoo wute waxtu wu ne lam laaj rek nañ ko ko jox noonu rek la demee noone ni ngi sant bu baax a baax nii nii rekk la noonu rekk la woon noonu rekk lay deme jërë ngeen jëf